salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di leen màggal ci weeru safar gi di ñaan màggal gi ñu jëpp ñu dem ci ci jàmm ñëw ci jàmm di ñaan lépp lu ñu fa def rek yàlla na ko sunu borom ful mu doon ay ngëneel tey nag jotaay bi mu doon jotaayu mbégte doon jotaayu fierté ku ne xam na wala ku ne gis na li xew ci réseaux sociaux yi ci ñetti fan yi muy coow loo xam ni amoon na. bët nag mënta ñàkk fattu waaye nag bi coow loolu amee wax dëgg yàlla am kilifa goo xam ni kilifa laa koy tuddee parce que kilifa la jug dox ci ay jéego wax ci mu di Ablaye Diop xaas parce que tey coow li demoon na ba ku nekk di génn di tëkku sa moroom ñi naan tribunal ñi naan procureur may jëmmam ji rek moo génn def ci wax ci jël ñi nga xamante ni tey ñoo jëf-jëf ji yóbbu leen ci ña nga xamante ni ñoom la ñu tooñ ni leen kat jéggalu leen nit bu tooñ day jéggalu loolu nag c'est normal parce que ku xam borom daaru xam fa mu muy wax daaru salaam te salaam la muy tekki mooy jàmm góoram nga doon wax naan ijaal salaamatan taduumu yaa salaam li yaawali xiyaala fi daari salaam kon tey jàmm jooju noonu moom la indi fii tey nag dañoo ñëwaat te buñ paree pareeguñ ñu indiwaat idaali fii mu toog moo ko woo ko idaali loo jàpp bàyyi ma nga ñëw ñu toog waxtaan nga jéggaluwaat dinañ la jéggal Idaly dañ lay bàyyi nga nuyoog ñu lay suivre fii ci People 221. asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp di leen ziar guy gi di ziar waa Sénégal yëpp di wax sama xol dafa tooy parce que gis nañ fan yëpp di xew muy erreur boo xam ne eh, dama ko def te dama koy nangu damay assumer ne dama def erreur waaye jëmm ji muy Abdoulaye Diop Xaas ku xam-xam ma ak moom ba ma ko jàppee ne ko yaay sama sëriñ ba léegi dara dañul dama koo tibbit sama xol muy dëgg ci man naam dañuy gëj a déggante wala dañuy gëj a gisee voyage la jógee jur bi mu jógee voyage ci guddi gi la affaire bi am woowu ma ko téléphone ne ko damaa def erreur wala dama def leen da koo gis ci télé yi ci réseaux yi mu jël téléphone am woo ma ne ma gis naa li nga def de ma ne ko wax nga dëgg de sëñ Abdoulaye Diop Xaas yow de sama sëriñ nga war naa la woo sax waaye dama fattu ak caaxle mu ne ma nag waaye def nga erreur léegi lii nga def ma nangul ko ko trop parce que muy sama kilifa nag ma jox ko cër muy sama lépp lu lim toog moo tax may wax bu mu defee loolu tam mu ne ma waaye dinaa ci dox maa ngi woo Matar mu woo Matar bi nga xam ne tey moom laa tooñ mu dox ci tànku jàmm ba ànd faak kii ma ci euh, euh, problème yi muy délégué mu wax fa lu rafet wax dëgg yàlla mooy Abdoulaye Diop Khass mooy wax di ko sant li tax ma ñëw fii tam dama koy sant bu baax di sant yàlla parce que bu ma santee Abdoulaye Diop Khass sant naa àdduna bi yëpp parce que tey rôle bi mu def nii lii lañ soxla Sénégal lii lañ soxla ci réew mi tey muy gis ñaar ñoo xam ne dañoo ñagasoo dañoo am problème mu nga jóg sol sa dàll yow kilifa gi nga ñëw defar loolu ba mu rattax bandang ba mel ni suukar ak soow Abdoulaye Diop Khass ma la ci sant di wax Sénégal man du ma tricher te suma tooñee damay tëtur ne jukk sama ñaari bëti oom jégglu parce que julli rek laa te ndaw laa te damay cuum may jégglu Sénégal yëpp di leen wax ne sëñ Abdoulaye Diop Khass damay ñaan ci barke Seydina Mohamed ci barke leeru alxuraan ci barke mbóotu alxuraan yal na ko yàlla defal jàmm. def na loo xam ne tey képp kuy kilifa diine kontaan nga ci. Hmm. képp kuy kilifa diine tey. sa cër lii la woon Abdoulaye Diop xas doxal na sa tànku jàmmate ci réew mi mm-hmm. Mm-hmm. parce que lii mooy réew mm-hmm. lii mooy yëfu julit gis njaboot goo xam ne dañoo am problème jaxasoo ñu naan ay tribunal ay tëkkonte tey nga ñëw sol sa dàll nekk kilifa defar loolu ba tey ñëpp bàyyi ñëpp tey fu ñu yéegoon cent pour cent seen xol wàcc nañ ba zéro waaye lépp ngir jëmm ji Abdoulaye Diop Xaas ma koy sant di ko remercier di ko ñaanal di ko bàyyi yàlla suñu borom yàlla yàggal ko fi di wax ne sëriñ dëgg dëgg dëgg kilifa dëgg dëgg ci Abdoulaye Diop Khass lay mel wax dëgg yàlla tagguma ko du ma ko man ku ma xam-xam ne duma tagg kenn mais ku def lu baax dama koy wax ba at ñëpp xam ne kii def def lu baax mm-hmm. ku def lu bon nag duma ma wane lu bon wax dëgg yàlla Abdoulaye Diop Khass di la bàyyi yàlla di la bàyyi yàlla di bàyyi yàlla yàlla yàlla defal jàmm di jéglu àdduna yëpp nag parce que ku doon jéglu man diisuma Matar Diop Subatel audio naa woo naa ko dem jotuma ko ma audio ko xamal ko ne dama laa tooñ te taxaw naa ak samay kilifa ñu woo ma ne ma yaa tooñ ma nangu ko trop ma wàcce waat sama bopp suufe sama bopp sama grand nga di la jéggulu jégg bu gën a kawe di wax moom audio bay jooy parce que man su may jéglu toujours sama xol day fees taalibe Serigne Saliou la ma ne ko audio su la neexee yóbbu ko fu la neex tas ko ci àdduna bi parce que man Serigne Saliou moo ma defar sama xol ku ko xam xam ne dara ne ko ci waaye nag boo tooñee da ngay jégalu njumte mënul ñàkk ndaw lañ rek yi wut dara fakkastaru mënul ñàkk ma ne ko maa la tooñ audio laa la dugal baalu la su la neexee na tas ci àdduna bi ñu xam ne idaal Idali mu tooñal Matar job si ba teel ci ay image jégaluwaat na ko ba àdduna yëpp xam ne Idali dafa def erreur juum na nangu na ko tey ca laay waxee li ma ko wax ci audio yi laay wax damay jégalu toujours di jégalu ki nga xam ne mooy aussi lil Framaren. Mhm. parce que ku tooñ da ngay jégalu. nee naa ko ma daar lépp loo xam ne war na ko rek. parce que boo tooñee moomatoo sa bopp. te nangu naa ne damaa tooñ. boo tooñee da ngay joxe sa ginnaaw. nee ko bu la neexee tëj ma cent su la neexee jëlal paas nga teg nga rey ma su la neexee jéggal ma ma dem ñett yooyu rek laa amoon parce que ku tooñ loolu ngay wax. di ko jégaluwaat di jégalu askan bépp xam ne ndaw laa erreur mënul ñàkk mais aussi itam kenn defloo ma lenn sama xër ak sama tolluwaay ci nit. moo tax aussi ba ñuy def defu ñoon pour lenn. wax naa ko pare du ma ci répété waat comme sama sëriñ su toogee jël du may waxaat leneen mais di wax Sénégal rek lépp kii la moo rataxal tey li nga xam ne mooy diggante bi bañ jàmm amaat. jërë ngeen jëf. Euh, voilà gars yi mu ngi noonu comme ni mu ko waxee rek xolom tooy na. jullit nag buñ ko tooñee day jégalu parce que yonante bi maa ngi fawee ci wéru bay mos naa toog fii xaas ni ma yonante bi mosoon nañ ko tooñ ba waa ji tiim ko jël jaasi di ko ko bëgg a cor yàlla ci programme am dëppër ñi yonante bi ba mu tiim ko waroon koo dóor waaye dóoru ko kooku fa la jógee ni ko wa innaka la ala xuluqin azim kon nag tey dañuy jël kàddu gi jox ko ki nga xamante ni ah wax dëgg yàlla tey da taxaw na taxawaayu président taxaw na taxawaayu sëñ Mountakha taxaw na taxawaayu al amin képp kuy kilifa diine tey xaas toog na sa chaise parce que tey li mu def du du c'est la première fois fii dañuy jàpp mu te sax ñu nañu woo borom daaru ñu fi jàpp ñu nañu woo borom daaru kon nag wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa lii nag moo doon kàddu yi nga xam ne dañ ko ciy wax di ko jox kàddu gi euh, dañ lay nuyu di la jox nga nuyoog ñi lay suivre. mbokk yi guy gi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal fii ci daara ji di nuyu ñi nga xam ne yéen ànd di seen i naataango di liggéey di nuyu Idali di gërëm it Sénégal yëpp ndax damay wax ni Sénégal dara xaju lu dul jàmm ak salaam euh, faral di wax ni gis nga lépp lu ma mën a jug dox ci jàmm mm-hmm. wallahi bu jarul ma ciy xaar li yàlla rek tax ma koy def gis nga lii ba may dem sax di ca dox ba ci mataar bi ma koy woo yàlla mi ñu tiim xam na ni jubluwuma ci sax li Matar xam na. bëgguma koo sax dama ko ne rek fu ñu mën a gisee léegi rek nañ gisee. mun waxuma ko affaire idaali waxuma ko affaire délégué ma déedéet ndax mën nañoo gisee léegi laa ko wax. Mhm. mu ma waaw ñu dem ñu toog waxtaan. mu nangul ma li nga xam ni am na. di wax rek gis nga tooñ lu mu rëy rëy jéggaloo ko raw. gis nga guy gi nit ki même boo ko defoon dara ba mu yëg ko ci xolam. boo taxawee nga jéggalu te kii jéggalu sax ki mu tooñ bu ko xoolee dina xam ni kii la mu def sax du sagoom waaye dara gënu ko ndax xam nga jéggalu day ñaari façon ki la jéggalu ba nga yëg ko ci sa xool xam ni mu ngi lay jéggalu te yàlla rek tax réew mi nag metti na metti goo xam ne actuellement ku ci nekk loo def ak ku ci nekk ni mu koy gisee ak ni mu koy xalaatee waaye damay wax Sénégal toll na foo xam ne même lu baax boo ko a def sax di ci sóoraale nit bii boo moytu dootoo ko def ndax réew mi toll foofu ndax ku ci nekk gis-gisam gis nga ñi seen gis-gis baax jërëjëf lañ lay wax dañu xam ni fii la féete waaye ñi nga xam ni seen gis-gis beneen côté lay féete dañu xam ni lii côté boobu la féete mais Idali vraiment nit ku nit ku baax la Matar Diop nit ku baax la délégué Amar nit ku baax la Liw Faramari nii nit ku baax la ndax xale la xam nga xale moom jamono bi lu ndaw day itam ku ci nekk yëkkati sa téléphone woo kii lii la lay xelal kii lii la lay xelal te Sénégal ku ci nekk ak xolam ñii yeekatu fitne lañ ñii nitu jàmm lañ waaye man damay wax butéel bu ci nekk rek kubéer ga la muy sañ la muy xeeñ moo ne ca butéel ba guy gi loolu laa gëm man nag jàmm rek laa xam. wax naan affaire justice affaire plainte ba ay menaces ci am parce que tamit gisaat nañ ku ci mel ni Pape Sarr woo nga ko mu ngi fii ci buntu kër gi ni ko ñëwal ma jubóole la ak idaal yi. parce que xam nga xam nga li tax xam nga affaire bi nit bu yaatoo gannaaw boo ko laalee nekkul moom rek nga laal mën nga laal àdduna te doo ko yëg loolu moo nekkoon problème bi parce que tey Makhtar moom it boo xoolee xam ni Sénégal dafa yaatu ginnaaw. Wally sekk boo ko xoolee xam ne dafa yaatu gannaaw am na ñoo boo leen tooñee nekkatul ñoom kese de adduna nga tooñ tey mën nga leen tooñ sax dajeeg nit léegi léegi léegi léegi mu poñe la te doo sax xam kooku ban genre nit la parce que yàlla al ka nga xam ne du ko bëgg ci xolam man nag loolu moo tax damay obligé tey lii mu def tey képp koo xam ni waxoon nañ ko ngay mbokk Matar parce que Matar mooy li mu leen wax démb rek ni leen dama am njaboot am ay doom am soxna am leen am lii léegi loolu ngay sóor aussi des nga wax loo xam ne xam ne nee na jour mu yëgee wax ji nelawut kooku ko métti ba pare est-ce amul soppe Matar boo xam ne looloo méttee ci xolam waaye tey bu gisee idaal yi taxaw ci caméra yi ni maa ngi jéggalu moom it lépp lu mu jàppoon dina ko gas ba mu xóot moo tax affaire justice beeg yéen justice doon jëm wax ne ñaata nit a ko doon woo bu la nëbbul ñoo xam ñaata doomi aadama ak bu ci ku ci nekk ak la mu koy wax kon looloo gën a garaw justice ndax mënoon na ak foo xam ne justice day yéex a ñëw léegi nag ñun duñu toog di seetaan loolu yàlla mi ñu tiim defuñu ko ngir dara dañ ko def ngir yàlla ak yonenti bi wallahi wal quran lii rek la tey ki nga xamante ni mooy Idaly euh, yan kàddu nga koy dénk boobu bu ëllëgee lii bañ koo dalate gis nga ci téléphone laaj ko dama ko wax te boobu dama ko bay gis Matar dama guma gis kenn gis nga nit bu juumee xam nga loo koy dimbalee da nga koy woo ci rokku ni ko da ngaa juum ndax lii du sa cër dama ko ni li mu def nii du cëram idaali li ko ñëpp xamee woon xam nga lan la wax bu rafet fu mu gis lu xottee mu jël pusaam ñaw mais musul nangoo jël luñ luñ boole ba pare di ko di ko ñëw musul ne ndax mataa da koo seede ba da koo seede démb foofu idaali fii la daan toog ma jàppee ko sama rakk loolu tuutiwul kon moom it xërëm moo ko ci dugal mooy li mu wax waaye tey jàpp na ni nit ki loo xër-xër ci moom li nga ko war a dimbalee lenn la rek mooy fexe noonam bi nga xam ni xam nga ni kii noonam la nga fexe ba noon boobu wëlbati ko bëgg ko est-ce que dégg nga wax bi nga nit ki boo xamee ni sax kii bugg ko yow fexeel ba dëppër nji ko ba kooku tey foo tuddee kii rek mu rey mu dagg xolam parce que xam na ni kon bëggatul ku dul kii man loolu laa jàpp loolu laay conseil Idali mooy lii man xam naa ni man xam naa ni lii dootul dalal ci dali man ma as gor rek la dara di dal ci kawam nanguwul lekk nanguwul naan am na ñoo xam bu doon ñooma yàlla mi ñu tiim ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi def lépp te dafa wax wax boo nekkatul ay affaire justice yooyu Matar Diop suba teel nii la ma ko waxee laa bëgg a jéggalu loolu tuutiwul loolu tuutiwul de yàlla mi ñu tiim parce que même bu dul dara idaal même bu ko Matar tooñoon moom la ñuy wax demal nga jéggalu ko mooy mooy sa mag lii rek mooy àdduna te rawatina bi mu yore xolu jullit di taalibe Serigne Saliou te Serigne Saliou ku ne xam ne jàmm la doon dox ak salaam kon nag mënoo nekk taalibe Serigne Saliou ba pare di téye sa xol bi safaan nag guy gëlal mënul nekk. mel ni yaa benn ndaje boo xamante ni euh, farnaaj wéewu bay lii farmarin dina ñëw ñoom ñëpp ku ne bëgg nga leen a ci kër gi comme ni ko daan waxee rek def teraanga wane ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. waaw gis nga gis nga ñii dañuy ñëw rek ñii di xotti ñaanuma yàlla bokk ci ñuy xotti damaa ñaan yàlla bokk ci ñuy ñëw ak tu ko nit mën a xalaatee nag moo xam gis damaa jàpp ni idali ni mu meloon ci liiw Faramareen Faramareen ni mu meloon ci idali kon beñante mënu cee am lu ndaw des fois day dugg ci xolu di ko jaxe-jaxe amul ñu muy waxtaanal rek wala borom xel mu rafet rek dina ko dugal ci musiba ndax tey idali même bu fekkoon tey nii nii nii bu génnoon gis ñuy néewal dool liiw Faramareen da ci tax man xam naa idali di moom xeexub jàmbur day ñëw yenu xeex ba wala ay xeexub jàmbur mën na yenu ko ba kenn du tudd borom kon ma tax su ma mënoon te dama koy def ci kattanu yàlla mooy dajale liin fii ñu kaf reetaan joxante loxo comme ni ko délégué Amar defee ak Makhtar Diop suba teel ba kii ni ko sama frère la kii ni ko sama rakk la xoolal lu ko gën a rafet amul kon loolu lañu bëgg it idaal it del liw faramaare rakkam bu ndawa ndaw la sax sa rakk nag bu juumee da ko daan du waaye magit bu juumee rakk ja mën na wàcce boppam it xamal ko ni mag juum nga magit nangul ni ko dama juum mooy li dokk ba mu taxee jéggalu ko fii amatul problème pour ñi ciy wax safaan rek nañ ko jéem a gas ba mu rek ñu suul wallahi lii rek mooy yëf man loolu laay ñaan Sénégal ak yëpp daal di tey sant Sénégal yëpp di yaakaar di jégluwaat rek jéglu rek laa mën a def mënu ma def leneen amul leneen lu may wax lu may di répétition sama njëgal toujours di ko répété toujours ci ñaar ñi nga xam ne moom laa tooñ muy Lille ak Matar ci sant Abdoulaye Diop di ko ñaanal rek moom xam na man xam naa te yàlla laa koy seedeel aussi tam quoi voilà di sant bu baax di sant aussi sama benn koo xam ne kilifa la jigéen la kilifa la du ma tudd turam kilifa la dox na ci tànk yu rafet moom itam depuis affaire ba léegi mu may woo mook si Abdoulaye Diop ñu ngi dëggante bu baax te su ma ko xamee grâce à Ablaye Diop xaas la ñu ngi déggante woon a Matar dox ci tànk yu nekk du ma tudd turam parce que macha allah euh, kilifa la ci réew mi te xëy na bëggul muy tudd ñu tudd turam te lu baax rek lay def toujours ci réew mi muy comme ni Ablaye Diop xaas jox ñoom ñaar dëgg yàlla ñoom laay sant di leen gërëm yàlla bàyyi leen fi parce que ñoom soxla nañ leen ci réew mi te dañuy dundal réew mi. parce que lii mooy dundal réew mi muy ndaw ñi nga xam ne ñun la à l'âge ans quarante ans ay xale lañ ëllëg ñooy defar réew mi mais dañuy jaxasoo def erreur ngeen gàggante ñu bu ñu juumee ngeen teg ñu yoon kon di leen ñaanal di wax Matar Diop suba teel fii ba ba may dee fii ba ba may dee damay chaque jour ma jégalu la fii ba may nekk sama ñetti fan yi bàmmeel man taalibe Serigne Saliou la dafay firndeel ndeysaan idaal yi xool bi dara nekku ci am na ñoo xam ne bu doon ñoom mën nañ taxaw bu ñu booy wax boo leen di xool sax dañuy xam ne ñii la ñuy wax gëmuñu ko waaye kii boo ko xoolee xam ne yow ci xoolam la ko tibbee di ñaan Matar Matar sax heureusement lu mu jàpp lépp bàyyi na ko tey dama ko doon dama lay yóbbuwaat kër Matar ngeen toog kafre ko nañ fàtte lépp ñu gas problème boo mu xóot ñu suul te ñaan ci réew mi yàlla def fi jàmm yàlla defal leen jàmm yéen suñu internet yàlla defal ko réew mi defal ko àdduna ci barke yonent yàlla Muhammad guy yow it ngay nit ku baax nekk ci banlieue bi fii di sago dama mos a gis sa nga jeg ci kaw naan man fii ma dàqal fii fii lañu am loolu dafa rëy nit ki li ko yàlla may bu ko xamee du xep du xool bëtu keneen li li ko yàlla may kon nag ndokk ñu leen amee ku mel ni yéen ci bërëb bi ngeen gëm fi ngeen nekk nekk fi porteur de voix yéen it di wax lu rafet di ko dox loolu dañ ciy kontaan di leen ci félicité di ñaanal sama gars yi ak ñi ngeen àndal ñëpp yàlla defal leen jàmm ak tawféex yokk seen i xéwal di gërëm Idali di gërëm àdduna bi yëpp di baalu àq ñëpp di wax li ñu fi wax xëñ na muy safaan mata di doomu aadama la nañ ñu jéggal te xam ne ay nit rek lañ jërëjëf.